amdi wa sukuri liman kuli bi saara lawri dan doona suqutin inda sarsaara law zanaayi wa ridwanin bila siqatin musqaadali min banni daymaana ansaara mbokk yi ñuy déglu di nu seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ndigal tukkeeti na ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalifa général di murit yàlla na fi yàgg lool te wér jaar ci sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Mouhamadul Moutada mi nga xam ni moo nekkal Cheikh Mouhamadul Mountakha foofee ca Mauritanie waaye ci kilifteefuk soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe ak mboolem waa fédération Sarsara ñooy am mbégte teew fii ci kër Serigne Touba gii nekk ci Daaru Marnaan fa séenee waajal bisu Sarsara bi nga xam ni moom la ñuy amal di ko waajal bis boobu nag muy tombé départ bi ak le 29 di bisub altine moo tax jataay baa ngi nii ci kilifteefuk jataay bi sëriñ Modou Kara Mbakke moom sëriñ Modou Faty Khary bokk ak soxna maam Isa Mbakke lépp waaye teewal fi soxna maam Isa Mbakke waaye teewal fi mboolem njabootu sëriñ Touba Xaadimu Rasul gi yëpp. ci jataay bi gis ngeen soxna Ndey Mbakke ngi nii ci sunu ginnaaw moom it bu fi teewee mel na ni soxna maam Isa Mbakke ahlu kafe teew na fi feggoo ak soxna maam Jaara Mbakke waaye feggoo itam ak soxna Xadi Kan mi nga xam ni moo fi teewal. soxna Faama Lo mi nga xam ne moo jiite soxna yi nekk fële ca Ndakaaru ñu feggoo itam ak soxna Astou Mbène waaye jàmbaar ñayu xare di jëwriñ di koo xam ne ñëpp xam nañ taxawaayam ci liggéey bi muy Serigne bay Jalla saar mi ngi nii moom it bokk ci seex si nga xam ni liggéey bi kenn mënu leen ci waaye Sar Sarr ñor ko lool. waaye gis ngeen itam Serigne Ousmane Samb bu nu jàkkaarloo ak moom dootuñu ko présenté ci Sar Sarr Sar Sarr du ñëw kenn du ko ci man dana jël alalam def ci ngir jëmmi Serigne Touba dina joxe ay oto dina joxe gaasuwaal waaye ànd ak ñoom liggéey bi te bëggut a feeñ ci lenn moom it mi ngi nii ci jataay bi. waaye ki nga xam ni bu ñu déparé jëm Sarsara ba ba ñuy àgg ba ba ñuy delsi moo yore kàddu gi di leeral di waxtaane Serigne Touba di waxtaane itam mbooleem mag ñi nga xam ni nekkoon nañu Sarsara. fekk fa cheikhul xaddim muy sëriñ Abdoul Ahad Dieye mi nga xam ni mooy porte parole fédération ahlu café waaye mbooleem nag waa fédération ahlu café yëpp ñoom it ñi ngi nii xarit yi ak wëllëre yi ak am di jàmm yi ngir waajal nag bis boobu looloo waral nu fas yéenee amal appel bi bis boobu nag wax nañ leen ko le 29 mais dajeeg altine mooy doon li nga xam ne moom mooy départ bi bu ñu yeggee Nouakchott nag le première mais danañu fas yéene départ Nouakchott jóge ca miise ba jëm Sarsara. képp koo xamante ne nii mosoo woon a dem Sarsara ñu ngi la cay woo ku ca mas dem yi tamit na xam ne Sarsara moom ak yokku la rek ci ñëpp kon nag yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam. di wax itam ne képp koo xamante ne nii yaa ngi war a dem Sarsara ñu bokk ko waajal ñu ñëpp man nag ñëw naa teewaale waa fédération la Sarsara bu njaarim ndax ahlu matt la ahlu café kon ñoo bokki bagaas ndax matt du leen bàyyi kafe kafe du leen bàyyi matt te sëñ ma sàmm Mbàkke ak Cheikh Ababacar Sarr la woon ñoom ñaar ci buqatal mubaarak kii di indi matt mi kii di tàngal kafe gi kon nag suñ demee ba yàlla boole nu ni ahlu kafe ahlu matt kon nag ñu ñëpp ko war a waajal soññe rek ab laaj yi mënuma ko të di soññ sama bopp di soñ mbooleem taalibe yi ci sar yoonu sar saar yu ñu jublu ren nag dañ ko tuddee sëñ Mouhamadou Fadal te sëñ Mouhamadou Fadal ñun bu ñu yeewoo Touba ginnaaw yàlla mooma ndax moo jël suñu wajur kaw la ko fii ci kon nag bis bi ñun mën nañ suñu bisa ñu ngi soon suñu bopp di ci soon ñu mboolem njabootu sëñ Naama nga xam ne mooy suñu bunt suñ sëñ ak mboolem njabootu Alaaji Mbàkke Samb ki tudd Alaaji Mbàkke ci ci jiitu Ablaye Samb ak mboolem sët yi di ci soñu itam suñu fàllu gi ndax bis kat bis suñu fàllu la kon ñu ngi baax a baax ci njabootu suñu fàllu gi soñu itam suñ mbokk commerçant ñu xam ne ñëw na ci dëkk bi ci liggéeyu Sarsara bi nga xam ne ñu ngi jublo jublu ngi daal soññ suñu mbokki taalibe yi suñu mbokk commerçant yi ndax Sarsara dafa simb ay liggéey yu bari bëri si mën fay juma si fim fa yeneen ñu leen soññ jàpp ci liggéey bi di soññ itam pharmaciens yi nga xam ne ñoo ne ci bi ndax foofa mbooloo ma fay daje dañuy bëri te na ñu ngi jàppale ci liggéey bi léegi kii du la sec kon nañu suñu jàpp ci liggéey bi lu jëmeen ci ay garab di soññ mboolem taalibe yi daal ñu ngi soññ mboolem ñëpp rek jullit yëpp ñu ngi soññ Sarsara ñu ngi soññ ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di waxit ci turu euh, fédération Cheikhul Khadim et daayira Murid en Mauritanie ci njiital Serigne Madiop Diop waaye it ci kàddug waa daayira Banaa Yal Baax yi nga xam ne ñoom ñoo yor tabaxu jàkk ji ñuy wax ci seen kàddu nag féete fii ci Sénégal di ci woo nag kuréel yëpp di ci jiital kuréelu fédération Ahlu Café bu soxna kuréelu Serigne Touba euh, yaatal liggéeyu Serigne Touba Serigne Bachirou Amar euh, kuréelu raditu anil mawla Serigne Babacar Faye jiite ko ak daayira Nuuru Daarayni ak daayira yi nga xam ni ñoom ñoo féete Ndakaaru yëpp ñu ngi leen di woo ci jàkk ji nga xam ne yàlla dogal na fii ñuy wax ak yéen kuule nañ ko ba raax ko ba def acrotère yi mu mel ni nag espace karo yi rek moo ci des ak yëkkati soroor yi ñu ngi ci woo kuréel yëpp képp koo xam ne mi ngi dégg suñu kàddu ñu ngi la ciy woo boo bàyyiwuñ kenn fii ci biir réew mi ak bitim réew sëriñ farlu Kassé ñi ngi koy woo ci nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew gi yëpp. dañuy wax ci turu jigéen ñi di wax na dañuy bëgg a jox kàddu jigéen ñi sunu kilifa gi fi toog di ko wax ci turu soxna maam Issa waaye di ko wax ci turu bàjjan faamaloo mi nga xam ne moo jiite fédération Sarsara bu Dakar di fa liggéey liggéey bu mucc ayib ñi ngi jox. kàddu soxna Ndey Mbàkke mu soxna Bintu Mbàkke mu sëñ Mbàkke màddina walliw ba mu sëñ Moodu Moustapha mu Xaadim Rasool soxna Ndey Mbàkke mii toog laata ñuy daje jataay bi ñu ngi toog ci biir muy sët ci yoon wi di doom ci yoon wi waaye léeg-léeg day fàtte loolu bi ñu toogee léegi Cheikh Abdoulaad mi ngi ñuy soññ di ñu ñaax ci Sarsara Sarsara dafa jara soññe dafa jara ñaax kuy jullit war ngaa jàpp ci sarsaara kuy taaliba Serigne Touba war ngaa jàpp ci sarsaara waaye war ngaa xam sarsaara yi kon ñii ci dëlmal war a dem sarsaara ñu war a dem yàlla nañu yàlla yab ci yoonu jàmm ak salaam yoon wu sedd guy yàgg dem yàgg fekke yàgg ñëw ci jàmm ci barke xaadimul xaadim ñoo ngi ci soññ nag sunu bopp di ci soññ ñëpp di ci waxit ci turu soxna maam Isa mi nga xam ne lii moo ko jiite ba andi nu ci bañ ànd ak moom liggéey bii noo ngi ñaan yàlla nañ ko ànd nii rek ba yomal xiyaam ci kanam Serigne Touba loolu lañ ciy ñaan saa bu ne yàlla bu ci saytaane amu yoon a ah Sarsara nag léegi rek ni ma ko waxee soxna maam Isa mooy njiit li mooy jëwriñ ji ba mu fay dem kenn di bu fa waaye nag bu demee ba xaalal ñu yoon wi ba mu mel nii ba ñëpp ñeme ko war nañu bu toogee ne am lu ko dog ñu ñaan yàlla jëlee ko ca jàmm ak salaam waaye dañoo war a soññ man de ren naruma woon a dem waaye ba ma xamee ne du dem. laa xam ne kon ñun ñëpp war nañoo mën a dem ndax liggéey bi sëriñ Tuubaa moom ne ko sëñ Muntaxa waxee rek amul laal suuf kon nag tey jii ren jii lu mu tënku tënku ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom liggéey bi dañoo war a soññ suñu bopp gën a tënku gën gën a tënku ci dem gi gën a waajal suñu bopp ah ba nga xam ne daal dañoo xam ne sa liggéey bi sëriñ Tuubaa moom ku ko dëgmal te benn caaxaan nekku ci yokkute rek lay def waaye du dellu ginnaaw mukk ci àdduna sa saare yéen leen ji daal noo ngi ñaan ci barkeb kin ko tudd Cheikh Amadou Fadal ah yàlla nañu ci defal tawféex lañ ci bëgg lépp yàlla nañ ko ci sama borom defal yàlla nañ dem ci jàmm it ñëw ci jàmm ci barke Seexul Xadim. bis bi nag mooy bis bi nga xam ne moom la ñuy màggal dem gi sëriñ bi demoon gànnaar am fa at yu bari ngir liggéeyal boroomam te tukki boobu di tukki bu am njariñ di tukki bu tonawu ndax sëriñ bee bindal boppam wax ne sama ñaari tukki yi di tukki bi ma tukki ci 1313 te mooy bi mu tukki woon Gabon ak tukki bi ma tukki ci mille trois cent vingt et di tukki bi mu tukki gànnaar ñaari tukki yooyu daal ku leen yemale ab dof nga bu xamul dara loolu sëriñ bi waxal boppam am na ñaari bayit yoo xam ne tam gën naa leeral waxi sëriñ bi ndax ca Gabon daa wax ne bayaxtuhu fil bahri tahta sajara wal bahru musbidun wa aw awli fajara jaayante naa ca Gabon ak yàlla sama borom ak rasulullahi sallallahu alayhi wa ca ron garab ga waaye nag géej gaa ngi sànni ay duus yu kawe te foor ba pare nag kàccor yi wër ma di ma garde loolu la wax ca Gabon kon dafa mel ni Gabon environnement bi daa mel ni da xëbal sëriñ bi ak di ko tiital te sëriñ bi du tiit du rët du wéttali ko ku dul boroomam ba mu demee gànnaar nag mu wax weneen bayit woo xam ne moo xajale la xewoon gabon ak la xew gànnaar gànnaar dane ba yaxtuhu fil barri taxta sajara wal jawwu tayibun wa awli fajara bi mu demee gànnaar dane jaayante naa ak rasulullahi caroon garab ga ak sama borom subhanahu wa taala fekk nag jam jawwi gànnaar mi ngi nekk jaww ju teey ba pare nag gaa yu baax yi wër ma kon fee kàccoor yaa ko wër di ko tiital fii gaa yu baax yee ko wër di ko bégal kon loolu moo tàggale ñaari tukki yi kon nag fee ku fa dem bànneex rek nga fay jëlee ak mbégte ak xol bu sedd ak pajuk aajo ak bàkkaar yu jeex tàkk ni mu ko waxee inna lazina ila sarsara xat xasadu ziyaarati faaraxu daarini aw saara kon nag ci turu kilifa yi ma tudd yëpp waa biir réew mi ak bitim réew mi waaye njabootu Serigne Touba gépp waaye rawatina njabootu Cheikh Mamadou faadal gi nga xam ne ñoom lañ tudde bis bi ren tàmbulee ko ci Serigne Abou Baraka mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Mamadou faadal ñoom ñëpp ñu ngi leen di yëgal bis bi. di ko yëgal soppee Serigne fallu yëpp di ko yëgal itam turandooy sëñ Fallou yi ak sëti sëñ fallu yi di ko yëgal itam ñi nga xam ne ñoo tënku ci fondation Serigne fallu ñëpp ñu ngi leen ko yëgal waa gànnaar ñëw nañ fi ba ñu def délégation. ci njiital sëriñ ma Jóob Jóob ci ndigalal sëriñ Sidi ba yëgal leen ko ñoom ñëpp waaye ñu ngi leen ko yëgalaat ci appel bi di soññ ñëpp nag ni ko sëñ Mouhamed waxee tam ñu ngi soññee ci jàkka ja ndax sëñ bi fu masa nekk dafaa def ab jullikaay te ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji wax nañ ne dañoo bëgg fondation Soror bi ndax mbooloo mi ñëw ci Sarsara bu rombee ren déwén rek lay amaat te Soror bi dafa soxla mbooloo moo tax bëkki taalibe bi itam suñ demee nañ xam ne dañuy dem ci màggal gi waaye dañuy dem tam ngir liggéey li Serigne Touba ndax bëgg nañ ba lañ faa jógee fondation soro bi ak lépp noppi mboolem na kuréel yi nga xam ne ñoom la ñu seqal liggéeyu Sarsara te sëñ Mouhamed soxna lim leen léegi ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ di leen waxaale ndax mbooloo mi menn mbooloo ma ku teewul bu sa morom teewee man laa teewal xanaa rek soxna Ayda Dem moom itam ñu ngi koy soññ ak soxna ne Njaay mi nekk Thiès ñoom itam ñu ay jigéen jiite ay kuréel di ay jàmbaar di santam waa Louga yi nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xéwale bu ñu déparé fii ñoom ñoo koy def suñu bàjjan astu sàmb mi ngi fi moom itam nañ ko daan defee rek ñu ngi ci soññ waa Louga li ci des nag mooy wax leen programme bi ni muy tëddee incha allahu taala altene le 29 mai la ñuy fanaan fii ci kër Serigne tubaa gi ci Daaru Marnaan suñu jullee fajar ba noppi incha allah la ñu war a xëy ci altene ji bu ñu maanaam dibéer laa bëgg wax le 28 mai la ñuy fanaan si fii ci kër Serigne Touba gi bët set di altine 29 mai ñu déparé fii fajar danañu def escale Louga fa la ñuy ndekkee convoi yëpp ren tam sëñ Sidi daa joxe ndigal ñëpp àndandoo moo tax convoi yëpp danañ daje Louga 10 heures bu ñu fa déparé nag incha allah war a dem Rosso dajeek ñi nga xam ne ñoo ñuy gàttandu si muy sëriñ Abdou Assis mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci relation extérieure ak sëriñ Mouhamadou Diop mi nga xam ne moo yor accueil yi ñoom danañ def délégation ñëw fekk ñu foofa ñu dem Mauritanie. talaata ji nag dañuy noppalu incha allah àllarba bi nag mooy sant gi seen saa baara di sant Seex Masamba cant gu wagee danañu ànd def ko ci talaata ji euh, wala àllarba ji lañ koy def bu ñu xëyee alxames di premier juin lañu ñu war a dem Sarsara ci alxames ji euh, bu mi di jotee fa la fanaan guddik àjjuma yandu fa àjjuma ba nu julli tisbaar bu nu jullee tisbaar nag ñu wëlbatiku ñëw fanaan si waat Nouakchott su nu ñëwee fanaan si waat Nouakchott bu nu xëyee ci. Euh, samedi bi lañ war a dem ci mission national ba nga xam ne foofa la délégation yëpp di daje ak njabootu Serigne Fallou gi ak autorité yi ñu man faa waxtaanee li nga xam ne dafa jëm ci euh, bésub ren bi incha allahu taala ca dibéer ji nag lañu ñu fas yéenee wàññeeku ñëw Touba loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi soxna si nag nee na mi ngi soññu ñëpp nag ci jumaa ji kenn ku nekk la nga ca daan def na nga góor góorgóorlu loo man ak loo mënut ndax fi ñu toll mooy li gën a jafe ci liggéey bi kon nag ñu ngi soññu ñëpp ci jumaa ji bàyyiwuñ ci kenn waaye nee na tam sa baara mi nga xam ne moom la ñuy dalal muy taalibe Seex ma sàmba moom itam nee na dafa bëgg yëf yi tiim ko te bañ koo laal nee na bokki taalibe yi képp koo xam ne mën naa jaayante ci li jëm ci xiiwal yi ndax boo gisee ñu sàkk paas képp luñ ci ay dëkkuwaay toftaluñ ci ay xiiwal soxna si dafa bëgg yoon wi yomb ci ñëpp ndax buñ ne woon nit ñi ñooy fay seen restauration ñooy fay seen i dëkkuwaay dana moo tax ñu yem ci paas bi li ci des nag ñu jaayante ko Serigne Touba kon soxna si neen lépp lu ci waay man na nga ko def te xam ne Serigne Touba rek nga ko defal kon nag lii moo nekkoon kàddu yi nga xam ne moom la ñu bëgg yëkkati lu ci manqué rek ñu jéggal ñu ko di sant suñu kilifa yi di ñaan yàlla yàlla nañu dem ci jàmm te ñëw ci jàmm soxna si tam nee na mi ngi sant ñëpp ci xew-xew bii xewoon ci biir koor gi te doon dogal bi daloon ci koom te bokki tali bépp ànd koog moom nee na lu mu waroon yanu moom képp la dafa mujj ayof toy ci moom ndax bokki tali bépp dañ ko ko li soxna nday wax ba léegi itam soxna si wax na ma ko soxna si nee na ma ku nartoon dem Sarsara sax te bëgg sama mbégte na nga dem ren ndax nee na su teewul ñu absenté day niru dara te liggéeyub sëriñ Touba bi bu mu taxaw la wax ndax sëñ Mountakha daa waxoon ne bu mu laal suuf. nee na appel bii kat musu cee bokk musu fee teew waaye nee na boo gisee mu ñëw ren jëmmal ci ko nee na ñàkk a teew soxna si ba moo tax mu ñëw wuutu ko ci jotaay bii kon nag nee na soxna si nee na. nee na képp ku yéene woon a ñëw ak ku bëggoon a ñëw soxna si nee na mi ngi lay soññ nga ñëw teewle ko ci bis bii ndax nee na lépp lu mu fi def te teewu fi nee na xam na ne ñu fi nekk danañ ko defal kon nag soxna si nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi séntu ñëpp nee na sarsaara nag nee na yomb na waaye yombul nee na ku amub yóbbante ku ne te munoo dem nee na fexeel ba nit dem neena la ngay yóbbante nga jox ko ko lu fa am nga am ko ndax dem fa kat moo gën bañ faa dem sa alal dem fa moo gën sa alal bañ faa dem kon ñoo ngi sant ñëpp ci li paase di leen soñ ci liñ jëm di ñaan nag yàlla ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim te àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin nee na mi ngi sant nag Serigne Sidi Mbacke ma nga xam ne moom la ñu fi fekk nee na mu nekkal fa Cheikh mun Mountakha te waxtu fa soxna si demee mu jox ko ciru mag bu mat sëkk ba nañu fay jógee yàlla nañ ko fekk ak jàmm ko ak jàmm jeexal ko jàmm jërë ngeen jëf am di wa sukuri liman kuli bi saara lawri dan doona suqutin inda sarsara law sanaayi wa ridwanin bila siqatin مصطاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى بير مكرمة من ارتالنا وفي أجم من سارا إن الذين إلى سرسار قد خسدوا سيارة فارغوا دارين أو سارا بركة برمتوا